Ousseynou Diouf responsable politique APR. waa li waral mboole bi rek moom mooy teelu suñu tëdd liste muy soxna Aminata Touré ñu koy wax Mimi ndax nag euh, Thiès vraiment ñoo ngi ko doon xaar ba ba léegi ñu ànd la main dans la main di liggéey tey nekkoon bis bi nga xam ne war na fay ñëw fii Thiès moo tax responsable yëpp génne seen mbooloo ñu ñëw pour tertu ko jox ko nakay chaleureux. dëgg fa yàlla yombul nag surtout ak taw bi nga xam ne depuis vendredi ba tey moo ngi taw suñu yenn yu bëri malheureusement nekk ci ay jafe ndox mi dugg seen kër ba tey ci suba vraiment mbooloo mi waroon naa ëpp lii mais koo ci woo mu nekk ci ay jafe-jafe doo ko mën a sonal mais malgré ça dañuy jaajëfal militant yi militant yi ak militantes yi ndax ku xool fii nii ak jafe-jafe yi nga xam ne tey nit ñi yendoon nañ ko depuis vendredi ba léegi teewul tey place promenade des Thiessois fees dell ki nit kon dañ leen di jaajëfal di leen féliciter di leen encourager. waaw li ko waral rek moom mooy waxtaan xam nga waxtaan lu mu munta mayee rek amul Euh, ñàkk waxtaan moo waraloon loo gu bëri mais bi ñu waxtaanee xam ne ne ñun Thiessois suñu intérêt moom mooy ñu ànd ñu ànd la main dans la main liggéey ngir l'intérêt des Thiessois mais pour l'intérêt du président de la République Macky mais aussi pour l'intérêt du président Idrissa Seck loolu moo tax ñu bàyyi suñu ñu teer suñuy këral personnel teer lépp li nga xam ne suñuy ambition personnelle la daal di dajaloo daa di ànd la mais dans la main pour indi ndab li ah jóge na ci d'abord su suñu ñaari kilifa président de la République Macky Sall ak président Idrissa ndax bi mu ñu woowee ci weeru koor gi dîner au palais ñu toog reerandoog moom waxtaan mu ne président Idrissa Seck ah sas naa la boo delloo Thiès nga woo njaboot bi toog ak ñoom waxtaan ngir lan ñu mën a nekk benn. loolu itam président Idrissa Seck jëfee na ko ndax bi mu ñëwee Thiès recevoir na ñëpp mais itam suñu coordinateur départemental muy le ministre Augustin liggéey na ci lu am solo ndax moom it recevoir na vraiment toute la famille de l'APR ak toute la famille du Benno waxtaan ak ñoom dalal seen xel ba ñëpp delluwaat kii itam ku ñuy wax suñu grand Demba Diouf nekk adjoint au directeur de cabinet Mahmoud Saleh moom it liggéey na ci liggéey bu am solo di ñuy waxtaan ak ñun di waxtaan ak jeunes yi di waxtaan ak jigéen ñi ba ñëpp delloosiwaat nekk la main dans la ñu leen di jaajëfal di leen féliciter. li ñuy xaat ci moom daal vraiment mooy mu ñaaxaat vraiment militants yi ñu bañ a seen loxo ndax nag yeggaguñ ci élection élection c'est d'ici sept jours vraiment ñu gën a redoubler d'effort bañ a naagu ndax boo naagoo rek daagu te boo daagoo rek des ginnaaw vraiment ñu leen di ñaax discours am moom mooy mu galvaniser leen. vraiment discours am moom itam mu réconforté leen mais itam discours am moom mooy mu félicité leen ndax nag suñu jàmbaar yii boobu ba tey tooguñu ku ci mel ni madame Sidibé Ndeye Seck dama koy jaajëfal moo téye jigéen ñi moo téye xale yi sama grand Saliou Ndiaye ngi nii taxaw sama wet di un responsable di un cadre de l'APR boobu ba tey toogul ci taw bi ci naaj bi ñoom ñëpp ñu jug vraiment dañ leen di félicité di leen jaajëfal di leen wax ne daal affaire bi nii la ñu jàppee ko noonu ba au soir pour yàlla mun ñoo may ndam ah ñu am fi itam suñuy frère waa Thiès Debout Bassirou Sall ñëw fi mooy mu nekk un responsable de l'APR mais itam ca jiite mouvement bu ñuy wax Thiès Debout ñoom it ñu nekk ay ndaw yi nga xam ne boobu boobu ba tey ñoo ngi sillonné à Thiès pour indi la victoire ñu leen di féliciter di leen jaajëfal message bi daal moom mooy unité unité ak jàmm ak salaam xam nga jàmm ci la lépp xaj te ñun li ñu liggéey xam nañ ko moo tax jàmm la ñuy woote d'abord mais ak unité jëli ndam li jox ko président Idrissa Seck mu jox ko président Macky Sall maa ngi koy féliciter bu baax ndax moom dafa foote dafa féete ci ñaari bunt moom daa féete Thiès féete jëree ji kon kooku moom ñaari taxawaay la am boo ko xoolee dafa liggéey ba kanam gi néew yi moo tax mu ne ko yow tey da ngaa waroon dem sax tëddi nelaw mais mention spéciale à madame Sidi à à à Diawara maam Yacine Soumaré